dañ ciy profité di remercier wàllu docteur Malick Diop ak liggéeyu ASEPEX bi parce que ginnaaw ñoom aussi euh, ginnaaw yàlla lépp li ñu coordonné fii ñoom seen loxo la ñoom la seen biir te ni ñu indi ni ñu indi pour ñu représenter Sénégal wóolu nañ leen te gëm nañ ni bu foire bi jeexee di fi gis identité wu ak couleur Sénégal. waaw pour six mois ñu ngi xalaat sax dem dellu si parce que am na leen liggéey ñuy jeexal Sénégal fii ba mars leneen xaj na fi dellu siwaat continuer ci ci même lancé bi parce que si mois la du euh, lu mat a bàyyi xel la voilà. waaw tey loolu en fait dafay tax nit ñi xam lan mooy dox Sénégal lan moo am Sénégal Sénégal naka la mel ndax réew mu nekk li nga moom ngay jaay ñun dafa am moo xam ne ñun ñoo ko moom il faut nag ñu wone ko parce que foire bi pour wone la pour wone li nga xam ne moom la ñu moom pour que yeneen réew gis ko moom mën leen intéressé te njort nañ ne Sénégal am na lu bari loo xam ne war na ko mën a jaay. gis nga par exemple boo xoolee sànq maa ngi fi dajeeg ñan waa ministère de l' énergie et du pétrole c' est hyper important parce que Sénégal fu mu nekk ni pétrole mu ngi fay feeñ bu fay feeñ da wuti ay partenaires te loolu si loo xam ne te maa ngi jot beneen information de taille mooy lan mooy que réew mi ñu nekk tey fii du Dubaï boo nekkee boo demee ba am vingt cinq ans même boo liggéeyul si xaalisu pétrole dëkk bi da ki ci am droit am kër dañ lay jox xur jox ñaari oto ba pare jox la ñaata ñaata mille dollars. sept mille cinq cent dollars sept mille cinq cent dollars loolu réewu pétrole même boo liggéeyul boo amee vingt cinq am nga droit am loolu ba tax nit ñi war a waaw waaw <clears throat> buñ ciy jublo bu baax a baax fas jom am ay nit yu ko mën a diriger fu mu toll nii pétrole baa ngi ñëw nañu xaar ba mu génn nañu xam ba xam xaar ba xam njëg bi ba mu commencé jar organisation bi mu ngi koy accompagner mais lu war a mën nekk la parce que nit koy def nii ay nit yu mel noonu ñoo nekk Sénégal. ñoo nekk Sénégal yëpp. te loolu pétrole waxu pétrole kese la. la gaañoo jam kayari ndungu uri jam kayari ndungu ala ndungu uri jam kayari ah ndungu uri ebo jam kayari ah ndungu uri jam kayari ayo